sa sa takku rakk. waaw sa xarit sa papa doomam di takk soxna Mame Boye Diao. Mame Boye sama lépp bu ñu nekk dox ci gannaaw Mame xam ne moom moo xewle. waaw muy badu muy def li nga xamante tey képp koo xamante ne jullit nga da xol ko war a fekk man sama xol dafay fekk di ñaanal Badou am na yàlla barke Seydina Muhammad bu barke njaboot barke ci barke Apol. 4 avril lu ñuy xaar. incha allah bu nekk daan daan dem ñibbi géej. am na seen. ci kàttanu yàlla daan dem ñibbi. mais ak a neex ci ngay xamee tapet non man laa ko tooñee. ah mais la ci. ah la. non man xam nga lu ma gën a naqari. mbiru mbiru audio yëpp non buur a naqari. en ba jot na ba pare huit kilos. déedéet buur xam ma naqari en tant que Eumeu Sène ma. amiin la waay nga ne la waay. amiin waay. xool en tant ma mbay du daan ñibbi Eumeu nga ma duma ma laaj la nga ne ma duma daan kii la la na ñëw El sama doom day lu mu bëgg lay jàmm na ñëw. combat bi la ñoree moo nga ba. tey nga xaar la carte la carte d'identité ñëw na pare. waaw Lac de sa xarit un. dalal ci xelu xelu Sénégal la ñu xam ne. jot Lac un sama papa la. sama xarit la. sama lépp la. Lac de un. lépp lu mu wax. am na plein droit wax ah, bu ko ci kenn bu ko kenn critique sama papa sama xarit la lu maa ko bëggal sama bopp un demul dara xaama fa toog sama doom day jeena tey yëngu na ak démb xale yaa ngi yëngal ñu ngi yàq ngay lutteur di porteur de voix tey ban message ngay lancé jëmale ko ci ndaw ñi ak ci réew mi message bu may lancé rek sama rakk yi sama mag yi sama papa yi kilifa yi diine yi nañ ñaan yàlla jàmm am Sénégal parce que fii jàmm rek moom moom fi xaj leneen xaj fi du dul di ñaan gouvernement bi. di ñaan képp koo xamante ne yaa ngi ci gouvernement bi nañ indi jàmm xale yi nañ bàyyi yàq yi mm-hmm. parce que bu ñu yàqee ëllëg ñun ñooy jóg defaraat. Mm-hmm. kon doog na ñëpp bàyyi li ñuy def. di ñaan yàlla yàlla def di ko métti di ko métti lu baax a baax a baax. ndax mooy li ma la wax rek. Sénégal dara xaju fi dul jàmm. Mm-hmm. ndax bu bàkkan demee. bakkanu Sénégal la. kon donc nañ ñaan jàmm am fi di ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm. képp koo xam ne am na loolu dañ sa biir xol yal na ko yàlla saral ci barke Seydina Mohamed yàlla fi yàlla def jàmm kilifa diine yi ñaan leen ñaan leen ci ngir yàlla war a suuli waa Touba waa Tiwaawan waa Kaolack waa Njaasaan fépp fépp kilifa diine bu mu mënta doon ñi ma limul seen géej waaye tamit gis nga yàq baa ngi fay am tribunal baak ñëpp gi yàq lépp maa ngi ñaan yàlla yàlla na fi yàlla def jàmm ngir yàlla war a suuli na kilifa diine yi ñaan ñu delluwaat ci xel yi ñëpp nekkaat ci jàmm ndax jàmm rek moom ba mu fi war yàlla na fi yàlla def jàmm